aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar ci àjjuma ji di rafetlu ni ngeen di àndee ak euh, rajo Futur Media fu ngeen mën di nekk nag ci kër yi ci bureau yi ci mbedd mi ci euh, euh, fépp daal ngeen di ànd ak RFM di teewlu émission xalaas ci rajo Futur Media di suñu journal fait divers mbégte mu yaatu la ci ñoon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di ñaanal ñëpp ñu am jàmm am wér. nuyu sama waa ji passe partout maa ngi lay ziar bu baax a baax. nuyu la Ndiaye ziar la bu baax nuyu auditeurs yi ak internet yi ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom tamit. ñu nuyu partenaires yi gunge ci xalaas bokk ci ñoom Optic Vision Plus Sénégal lunette partout et pour tous di leen jaajëfal bu baax a baax butigu lunette bu mucc ay bi spécialiste yi ci wàllu lunette fii ci Sénégal ñi nga xamante ne ji. ñoo tax ba sénégalais yi amatuñu problème mu lunette yu baax wala lunette yu garantie wala ñu bëgg ay lunette mu cher lool ba duñ ko mën a jënd ñi ko fi jële di waa Optique Vision Plus Sénégal nekk fépp ci réew mi ñu leen di gërëm bu baax a baax di wax waa Sénégal ne bu ngeen bëggee ay lunette moo xam ordonnance ngeen yor wala ngeen bëgg ay lunette nii nii yoo xam ne ay lunette fashion lañ leen di woowee bu ngeen fa demee am ngeen réduction bu leen di xaar li ci des nag bareewatul ndax ci janvier bi ci lay jeex Euh, réduction yu yegg ba ci quarante pour cent ñu gërëm comptoir commercial de plomberie du Sénégal champion yi ci wàllu tuyauterie wàllu plomberie ak ay moto pomp boo ci bëggee yu baax gën te garantie yomb teg ci da ngay dem ca CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñi nga xam ne ñooy tabax moo xam particulier wala industrie industriel yi kon ñu soxla ay matériel sanitaire ay matériel salle de bain marque yi gën ci àdduna ñoo leen représenté fii ci réew mi ñoom waa CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal euh, showroom bi nga xamante ne ji nag mooy bu mag bi boo fa demee da nga fa gis ay innovation ay modèle ay ay matériel de dernière génération mu ngi ci VDN bi dend ak Goodred en face immeuble Hyundai mais yamuñu foofu ndax ñoom comptoir commercial de plomberie du Sénégal bari nañu ay place fii ci Dakar bu ngeen demee ci ccps point sn www point ccps point sn di ngeen fa gis fi seen place yi nekk bagage yi ñu yor ak lépp lu ngeen soxla ci ay information ñu jeexale ak établissement waa kër Serigne Touba Fallé di partenaire ci xalaas mais également di partenaire réew mi ndax gam bu am solo bi nga xam ne moom la ñu indil waa Sénégal boo ne établissement waa kër Serigne Touba Fallé xel dafay dem ci gaamu vite fait bi gaam la bu complète baax te bëri njëriñ loo soxla rek mi ngi ci gam bi sa yaram di metti nga soxla frotte bu baax mi ngi ci gam bi nga tëdd ay weñ sonal la wala ay mbóot wala ay yoo am na am na am na am nañu ci gam bi pomp wala cuuraay bu ci aay am nañu également cuuraay bu neex lool boo xamante ne ji ngir kër yi la yemuñu foofu ndax crème épilatoire crème main wala crème pied ñoom indi nañu ko nag ci ci ci ci anam bi gën établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère di leen remercier ay ca ñu jublu ci xalaas yi. l'homme fort de Ngabou, l'homme de tous les temps. <laughs> amiin ak yàlla. Ndiaye. waaw euh, dafa am benn benn waay agent de recouvrement la. naan ci après ñi def transfert d'argent lay liggéeyee. Mhm. démb dafa yoroon moto def ci xaalis bu takku. odo euh, saakam def ci xaalis bu bari ndekete tëjul saag bi bu baax. te mi ci moto bi. waaw xaalis bu bëri nag moo wadd ci tali bi huit million hmm. takk bu cinq millions ak bu trois millions. diggante ci VDN bi ak euh, relais fii ci avenue Cheikh Anta Diop fa la wadd ku ko gis daal na nga ko dimbali ndax xaalis bi moomu ko agent de recouvrement la. Ah, euh, nga woo ko ci 77 366 67 19 wala 77 843 12 36. 8 millions daal takk bu 5 millions ak takk bu 3 millions. mu def ko ci saak bi ndeke tëjul saak bi bu baax. waaw yor moto mi ngi yor benn moto Temax. boo demee sax tëjul nañ saak bi dañ koy jéem a tëjji mu mooy. te moom yëgul ko parce que xaalis bu mel noonu. Mhm. nit bu ko defee ci saag. leer mooy dana ko tëj bu baax. du saag bala bala muy bala muy bala muy bala da ko waroon def ci kanam waru ko woon boot. wala mu dugg ko ci maalu kii bi. wala som bu mel noonu sax boo ko yoree da ngay da ngay jël oto. 8 millions. nañ ko dimbali daal. ah kii ko dimbaliwul dana doy waar de. waaw ah, dina dina doy waar lool. nga def fu mu ko réeral fu mu ko waddal. diggante VDN bi ak relais. relais mooy fii mais xamul exactement fan la. waaw xam naa daal diggante boobu la moom. waaw relais mooy côté euh, fi ñuy maye deret. waaw côté centre transfusion voilà waaw. xam naa sax war naa faa dem. nañ ko dimbale bu baax. ñaar ñetti mool yi ñetti mool yi. Mhm. Euh, Cheikh Ndao waxoon na ma seen tur waa Mor Fall. Mhm. Mor Fall Sonko ak Bakary Diouf dañoo réer. dañoo réer ñu ngi yor benn gaal bu bu la depuis le 20 janvier ba léegi seeni mbokk xamuñu ci lu ñu ne. ci géej gi lañu réer. waaw en fait géej lañ demoon quoi. boori Gàmbi waaw. mais gisuñu leen. ba léegi nii depuis kan la kan la Mor Fall Souley Sonko ak Bakary juuf ñi nga dëkk rek région de Thiès ci benn dëkk bu ñu wax Touba Peku. ndeysaan waaw dem bu leen euh, a daal ku ci information rek nga wooñ ci 77 150 17 17. jërëjëf. Aliou Ba maa ngi gërëm bu baax Yacine ci digital bi. waaw li baax na ci ñu lay gis nag xam nga bu la yàlla bindee nenn ni ay faral di toog fu leer. ko moom wax di man. Hmm, déedéet ah, ok yow kay nëbb soo. paas bëggul lëndëm. Ndiaye. waaw ñu dem Thiès. Thiès waaw ay ca lu fa xew. meurtre encore. mais diggante Thiès ak Mbour tàng na temps yi torop. Mbour dañ na ngay rey ñu ngay rëcc ci prison yi ñu ngay suli yi. mbuur ñi ngi rey ñu ngi évadé ñu ngi sulli néew. mais eh, bi yi sulli néew euh, ci information yi ñu mujjee jot. Mhm. femme bi nga xam ne moom lañu ne dafa génnee ci armeer yi. Mhm. ñu gis ko mu yor benn siwo boo xam ne benn xale moo ci nekk niw benn xale ñu baal ma ci waxin bi. Mhm. boo xamante ne ñaari loxo yi nekku ca. mu doon jéem a dem ci plage bu golf doon ko jéem doon ko jéem a doon ko jéem a kii. Mhm. Euh, moom femme bi ay mbokkam nee nañu. Mhm. àndul ak xelam maanaam wérul. Mhm. waaw. am na soixante-dix ans. waaw mbokk yi nee nañu moom mi ngi dëkk Joal. mbokk yi nee nañu bi mu defee li muy def ba police jàpp ko ci la ñuy soog a xam sax ni mi ngi mbuur waaw. biñ ko jàppee yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko waa police euh, bu bu bu bu Mbour jàppee. Mhm. ñi ko jàpp ñoom seen commissariat amuñu fa cellule pour femme. waaw mooy bu police bu ja bu jàmm ga yaakaar naa xam central. waaw bu ñaari police fa nekk. waaw je pense bu jàmm ga bu central ñoo ko jàpp. waaw amuñu cellule pour jigéen. waaw ñu yóbbu ko jàmm gën. waaw démb nag ay boori 17 heures. Mhm. lañu ko jëlee foofa yóbbu indi ko pour auditionner ko. Mhm. mais maanaam ci waxam rek. Mm-hmm. la ñu xamee ne kii wérul parce que nee nañu ci li ñu wax. Mm. bu ko laajee lii nga yor foo ko jëlee ak looj doon def dane sama doom la donc wérul ci li ñu waxagum nag te it ay mbokkam nee nañu ñàkk wér googu sax am na médecin yu ko attesté donc comme affaire bi dafa génnoon nit ñi yéemu ci. xamuñu lan moo ko waral kan moo mën a dem ci armée di fa sulli benn xale di ko def ci siwo di yooyu yëpp affaire bi jaaxal leen mais liñ ci jàpp gab mooy femme bi ko def. Hmm. c'est une dame de soixante-dix ans su ma juumul. nee na ñu àndul ak xelam te feebaru xel bi ko dal daanaka vingt ans ñaar fukki at. Hmm. ñu ngi nii muy wéy ak moom. nee moo du dëgg de waaye. Njaay. Hmm. feebar vingt ans. gàddu essence. essence. gàddu liir. fas yéene taal. kooku ay preuve la doon la doon effacé. déedéet mën naa bañ nekk loolu daa xamul nit ah. am na rab yoo xam ne bu la jàppee. waaw yim lay def loo même boo wérul yim lay def loo bu ko nit xoolee naan kii doful dara junn fekk rab yi ñoo lay ñoo lay ñoo lay ñoo lay ñoo lay defloo néew ma neew ma néew ma li nga xamul de. Mm-hmm. mais nañ ñu dimbale xóotal ci enquête bi rek. ak ak xale bi kan la. ak xale bi kan la moom nag nee na doomam la xam nga loolu moom. Ah, ñu dem feneen. yaa tamit soixante-dix ans tam xale bu am sa doom la aussi tamit. ah ah, ah wér wér moom defu ko. léegi. Mhm. dañuy dem déglu Cheikh Anta Diop. Mhm. kii tamit seen biir kër lañ ko rayee moom. biir Thiès. waaw seen biir kër te Daaru Salaam. ñu déglu déglu. Anta Malick ñam dëkk Daaru Salaam mbir mi man wàcc naa fekk xale yi toog ci buntu kër gi mu toog yor téere di jàng ba heure bi jot man leen dem leen duggi arab ba heure bi jot na ñu dem duggi dina jàngee ba cinq heures jot niñ daan def dañuy dugg di coowaloo xale yi di ñëw nu ñëwee ak seen i morom yi ñu dëkk lew na bu nu ñëwee jàpp ndox jàpp fii julli waa lew na yi ñibbi ñoom ñu toogaay seen biir kër bu heure dem jàngi xasida répété jotee si talami ñu dem jàngi xasida répété koñ bi yëpp mën na ñoo seere suñu kër gi duñu doxi duñu dem fenn ñu jàngi alxuraan seen arab ñëw seen mag yëpp ci daara ji lañ wàccee ba liggéey su seen mag yi xëyee dem liggéey ñu ñu dem liggéey bu ñu wàccee fekk leen ci ñu ni dem jàngi ñëw wàcc jotee ñu dugg seen kër taa seeni rajo seen kenn yor nga saw looy jërigloo sa xasaay ba heure bi joo ñu dem ci talami répété ji defuñu dara jàngi ñëw ci kër gi xale bi gën a ci kër gi sax bu toxawee fii di fo ba ñu allah ak batimi bala ma a woo ñu ñu daw dugg kenn taxawaalul fenn amuñu kenn xarma ki ko jëm xoon xamul tax mu jëm ko ndax neen bërkit ñaari fan la jàng seegul ci daara ji gëj na ci daara ji lu ma ñetti weer ñaari fan la ci jàng seegul neen lew na la dëkk de man xaw ma ko ci xale yi lew na yi ndax man daawul ñëw ànd ak samay gone di di di si fii man daal toog naa julli saan ba pare di leen déglu ñuy ñëw gone yu ndaw yi ñëw nañ ma ne jox ma añ bi ma añ ma jël kuddu di tibb kii ñëw ni ma yaa jam nañ diw ma tëb dajeeg moom fii mu miir daanu waaw daal di dee man leen dee na ñun ma dew man leen ñàkk nañu dee na lii dong laa ci xam bu lu ma ci xam juróom jëm fukki at ak juróom benn a ah, man de dégg naa ci ñu naan am na fukki at ak juróom xaw ma waaye man xaw ma ko yàlla xam na ne xaw ma xale bi mosuñ ko xam ci koñ bi dëkku ci koñ bi nee lew na la dëkk ah ñun na ginnaaw ñàkk nañ te ñàkk nañ yàllaa ñu xañ a ah, daa jaamu ji woon yàlla jàng arxuraan ñu ñëw boom ko nii nan jàpp ci yàlla rek muñ nag te xam ne lii la ñu yàlla nattoo teg ñu ko ñu nangu dogal bi nag kese dañuy nangu dogal bi kese dogal suñu borom egg si nag suñu kaw dañ ko nangu. waaw léegi ay baayam ak i nijaayam dem nañ hôpital régional léegi buñ ca jotee ñu daal koy jébbal suñu borom rek fañ jébbal ay maam ak i baayam ah Sénégal war nañ cee waxaat de boom bi bari na de ñàkk yar gi bari na ndax da nga yar sa doom fa ko war a yare jàngal ko fa ko war a jàngal teg ko ci yoon mu xam yoon woowu ku yarul doomam ca àll ba ñëw bayangal doomam ñëw faagaagal sa doom ci lu dul dara dara dara dara du mujj fen boo amee loxo bu gudd ñaari weer ñu bàyyi waat la ngay bala balangal kooko nag ñàkk njabootam te yar ci njabootam ci siraatal mustaqim xale yi doxiwuñ waxiwuñu demuñu fenn seen ëtt bi ku leen xam ci ëtt bi nga leen xamee bu timis jotee bu ñu xasee toog kenn dootul génnaat du mag du ndaw kër gi moom koñ bi yépp mën nañoo seere ni loolu la baaxoo daaru salaam dend ak armeeli silmang yi suñu kër ak armeeli ñoo jélloo dong daal moo lay wax keneen mun la cee wax lenn lu dul lii xale yi daw ni ma ñëw daa jam nañu diw ma jóg dajeeg moom mu daanu samay loxo man leen dee nañu ne ma déew lii la man leen woon leen ma sa ñoom nijaay ñëpp ñëw ak waa koñ beeg bokk yeeg dëkkandoo yi ah léegi yóbbu nañ ko ah eggul hôpital dee na man leen man fii la dee woon jeex na kenn mënoon lu cee wax leneen du ndayam du baayam. dañ koo jam mu fëx daw. dañ koo di ñëw xale yi ni ma yaa jam nañ diw ma daw dajeeg moom fii di ko atawu mu miir daanu sama daanu man leen dee na ñu ni ma déewul ma tourné ni ana ki ko jëm ñu ma ma nga ma tëye ko ñu nangoo ko ci man dugal ko fee nañ xaar police waaw lii dong la police ñëw na ba jël si ko de dégg nga Mohamed hmm. li metti de trop sa biir kër li na de wala ko sa biir kër. mais nag euh, soxna si doon wax maa ngi dégg ci kàddoom ku gëm yàlla. Mhm. lu lu lu raar lu raar ci. ci mhm. ci ci jamono ji. surtout surtout ci man instant bi. ma ne ko mhm. maa ngi dégg ci moom ku ku ku ku gëm yàlla. oustaz maa ngi dégg ci moom ku ku ku gëm yàlla. jërëjëf. doy na waar de. trop doy na waar trop trop trop trop. mais euh, gars yi ñu ngi ci enquête takk dari ñu ngi ci jàpp jàpp nañu jàpp nañu booy booy bi ko def. daanaka ay moroom lañ ndax ku ne fukki at ay fukki at ak juróom uh-huh. ñu am. ko parce que. nii mm-hmm. dama leen daan attaqué mais cette fois dama leen a ñeewant. Mm-hmm. suñu ay mbokk sénégalais yoo xam te ne nga nekk fële diggante Asamaka. Mm-hmm. ak benn dëkk en tout cas ci Niger bi la noonu a rapatrier Algérie. toll nañ war nañ ci lu ay cinquante sénégalais. mais Ndiaye sonn nañ fa sonn goo xamante ni. dama lay bàyyi nga déglu. Algérie lañ nekkoon di liggéey wax dëgg yàlla doon fa liggéey alhamdulilah yàlla doon ñu fa suturaal nag di ñu dimbale waaye dañoo dem ba benn moment moom Algérie moom ku nekk xam na ni ay affaire de papier moom fin d' année bi day métti dañuy def rapatriement yi waxuma la fin d' année sax waaye chaque trois mois dañuy def rapatriement te suñu def suñu def rapatriement xooluñ maanaam dara li nga am wala li nga li say matériels yi nga fa bàyyeeg yooyu ñoom ni ñu la jàppee rek noonu lañ lay indee ñii dañ leen a fekk ñii dañ leen a fekk ci boutique yi ñu jàpp leen amul amul expliqué dañ lay yóbbu direct prison ñun ñii di wax ak yow nii def nañ plus de trois semaines ci prison bi di xaar nombre bi mag bi ñu jógee foofu ñu embarqué ñu di ñu yóbbu fële euh, Tamaracet ci diggante boobu rek ci diggante yóbbu boobu rek ñu ci dund lu métti amul duñ la jox nga lekk duñ la jox nga naan te Tamaracet ak Alger capital maanaam foofu distance kenn xamul nu mu toll bi ñu jëlee foofu yóbbu ñu Tamaracet ñun dañu egsi rek naar yi commencé ñoo dóor dóor yu métti ci biir prison bi di ñu dóor dóor yu méttee méttee méttee métti visité ñu suñu ñu bañ set huit wallaahi da ngay gis ay kilifa naar yi dañ leen di suñu kanam nii di leen visité foo denc xaalis dañ koy loxat sa téléphone la ñuy njëkk récupéré moom dàll yére su baaxee sax dañ koy jël sa passeport yoruñ tous instant nañ suñu lépp ay borom kër fi nekk ay njaboot ay kilifa ñi may wax ak yow ne ay paa ñu ngi fi ñoo xamante ne bi ay sénégalais la bàyyi woon seen soxna seen njaboot lépp sénégal nekk ci àll bi góor góorgóorlu pour dimbali leen yàlla ñëw ak ndogalam nag waaw bi ñu jëlee Tamara set dugal ci ay camion yoo xamante ni bi kenn xamul camion lan la dajale ñu si ay nationalité yu bëri nekkul ñun sénégalais rek lañ jàpp parce que nationalité yëpp la ñuy jàpp mais camion ñëpp lañ si dajale plus de ay trente gars yi dugal ñu yóbbu ñu ba Tamaracet quinze kilomètres avant Niger quinze kilomètres avant avant village bu Niger Asamaka la tudd léegi quinze kilomètres yooyu dañ koy dox naari suñu excès foofu ñoom duñ dugg dañ lay wàccee rek yéen ngeen di dox continue am na ñoo xamante ci dox bi la dee am na ñoo xamante ne nii dañuy sax réer duñ xam sax fan la fan parce que OIM bi lañuy lañ doon wër suñu wàccee rek ñu da ngay dox pour octobre ñu ngi ñu ngi fii nii kenn xamuñ fan la ñuy taxaw xamuñ fan la ñuy féetee biñ eggee Asamaka rek li ma leen expliqué yëpp boobu Algérie la ak ci yoon bi te lu bëri sax mënu ma ko expliquer téléphone parce que métti waa na métti waa métti boo xamante ne bi ñun mënuñ ko sax expliquer bi ñu egsee nit euh, asamaga tak ci loxoy waa OUM lañ lañ dal foofu moom pala métti waa bi man dañu yaakaaroon ne sax ñun suñu suñu doxee quinze kilomètres ba egsi ci waa OUM suñuy rongoñ dina fer mais foofu beneen affaire la tamit waaw métti bi foofu la gën a commencé waa OUM parce que da nga doon xalaat naan yàlla naa génn ci loxoy naar yi mais foofu tamit beneen métit mu ngi ñu fa doon xaar ndekete affaire bu méttee méttee métti lekk bi da nga koy rang toilette da nga koy rang sedd gars yi joxuñ ñu mbàjj yi deux semaines ñun suñu premier bi ñu soog a egsi rek def nañ ko deux semaines yoo xamante ne bi ndox doo ko laal parce que convoi yi ñuy indi moo bëri robinet yi ñu fay teg doyul amoo mbalaan amoon dara amoo ko def nañ fa plus de un mois ñu ñuy soog a jox basang lañ ñu jox ak mbàjj boo xamante ni bii nii sàngul sax xale ñu siy débrouiller di ci débrouiller def nañ fa plus de foofu noonu mois aussi mois cinq jours def nañ ko noonu lekk gi baaxul naan bi baaxul orange money su fekkee dañ la yónnee dix mille sept mille lañ lay jox trois mille francs lañ ciy dagg parce que ki lay jox xaalis bi ki yor orange bi moom ci connexion am ngay utiliser ci connexion am lay dagg am na ñuy dagg deux mille francs ci vocal rek benn vocal rek affaire métti na métti waaye boo xamante ne bii kenn xamul fu mu yem pareegul njaay mhm. parce que dañoo nekk foofu sonn fa mhm. donc dañuy woo seen mbokk pour ñu dimbali ay dix mille ak cinq mhm. woo seen mbokk pour da ngay fay 2000 parce que téléphone jàmbur la ñuy vocalé foofu ca Niger. ñoom dañoo sori sax. te dañoo sonn léegi daf ci am ñoo xam ay clandestin la ñu nag dañ fay jóge woon jaar yoonu suuf pour dem def clandestin. dem réewi tubaab yi waaw après ñu takk. ñu takk ñu jàpp leen. am ñoo xam ne dañ leen fekk seen ay bërëb liggéeykaay ci Algérie jàpp leen boole ñëpp indi laaj ma luy coow li. luy coow li léegi ñoom nee nañu ci lu ñu wax waa OIM ñoo ne leen seen nguur ñoo wooteegul pour ñu rapatrier leen. parce que yeneen yeneen nationalité yëpp ñu ngi di jël si di leen yóbbu ba mu des Sénégalais yi. OIM mooy organisation internationale de yooyu quoi ñoom nag moom ñoom ñoom ci li ñuy liggéey dañuy bëgg immigration di gën a am mu wàññeeku moo tax li ngeen di wax nañ koy téye ak catu kii ñu déglu. après ci la gars dajaloo nag def benn genre foofu noonu loolu sax moo ñu dimbaloon sax ba benn instant gars yi ñu asamaka yaakaar ne suñu jëlee arlit rek affaire bi day continuer ñu ngi arlit ñu ngi fi un mois aussi waaw def nañ fi un mois et instant bi nag suñu situation dafa critique fii ñu nekk nii kenn xamul ci lan lañ nekk sonn nañ wax dëgg yàlla te mënuñu yuuxu ñu ne xaaral ñu jàllale ko fii ngeen jàppale ñu jàllale ñu message bi suñu président de la république parce que ñun nationalité yi ñu ñu ngi leen di yóbbu ñu ngi dem ñu ngi dem à expliqué daf naan seen président moo wooteegul parce que ñi ngeen di gis ñuy dem seen président yi ñoo demandé seen doomu réew pour ñu ñëw ñun nag fi nekk ni suñu président la ñuy la ñuy ñaan ngir yàlla mu dimbale ñu sonn nañu ay doomu réewam sonn nañu ay jeunes xale yu ndaw nekkoon seen avenir di dimbale seen waajur ñu jàpp leen ñu nekk si ay situation yu métti parce que tamit am na ñoo xamante ni bii sax ñu ngi leen di yóbbu suba suba suba gars yi am na ñu ñuy yóbbu te ñooñu wóor na ma ni ñoom leen di jàpp ñun bi ñu indee asamaga biñ ñuy jàpp ñu xalaatuñu woon sax ne danañ leen jàpp egsi fii ñu som métti na trop trop trop ñu ñaan waa Sénégal yëpp ngeen jàppale ñu ñaanal ñu message bi daw ngeen dimbale ñu daal xam ne daan suñu doole rek moo ñu yëkkati woon ay jeunes lañ am avenir ñi ay ay borom métier yu qualifié bopp Sénégal moo tax ñu dem di ko wëri feneen mais suñu amoon lu ñu gënal ñun Sénégal la ñuy toog parce que dara gënul ngay xëy di jàkkaarloog sa yaay di jàkkaarloog sa papa di jàkkaarloog say rakk ak mag sa famille mais fi nekk ni ñun loolu yëpp daay xañ nañ ñu ko ñu ngi ci àll bi nag sonn nañ te fii nii ci dëkk bi amul lu ñu fi dul dund dañuy agressé à tout le temps dañuy agressé guddi ak bëccëg dañuy ak suñ génnee dox sax doog a mën te fi ñu yóbbu instant bi campo bi ñuy yóbbu cinq kilomètres la ak ci ville bi ñun suñu téléphone ñii ñi ñu yor ni chaque jour dañuy dox cinq kilomètres dem chargé ji ko ñu waate benn téléphone bi ci la gars yëpp di connecté woo franchement sénégalais yi sonn nañ yeneen nationalité ñu ngi dem suñu kanam te ñun xamuñ lan la lan problème bi ñun fan la ñun foofu rek ñu jaaxal ñu bëgg ngeen jaalaleen ñu lii ngir yàlla ak yonent yi dimbala ñu ne ko président yëpp ñëpp nañ koy yëg dimbale ñu ngir yàlla jëlee ñu fii indi ñu Sénégal parce que sonn nañ parce que xalaatuñoo dellu Algérie actuellement te fi ñu nekk nii mënoo génn dem fenn diggante Niger ak Burkina seen frontière bi dafa am problème parce que gars yi doon risqué di jéem a ñibbi sax après dañoo am problème ci yoon bi président de la république maa ngi lay ñaan say doomu réew ñu ngi sonn ci àll bi ñu ngi sonn baax gars yi ñu feebar waa OIM e duñ la faj fii mësoo mënoo fi gis un boo xamante ni bii alhamdulilah nag ñu sénégalais yàlla mu ngi ñu suturaal mais guinéens yi maliens yi mësul un mois bu nekk nit ñi ñaari nit yi si génn àdduna moo tax ñu ñaan suñu président ñu dimbali ñu fii ñun ñëpp feebar fii kenn wéeru ay karang di la mat ay teeñ lu nekk ñu suñu yaram yi nii maanaam daal genre prison la. nombre bi nekk Asamaka ak nombre bi nekk fii bokkul parce que Asamaka rek yaakaar naa vingt six personnes mu ngi fa. waa fii soo jëlee li fi nekk yëpp nombre bi fi nekk ñu ngi war a mat ay cinquante six personnes moo nekk fii nii man maa ngi Arlit fi mu nekk nii Asamaka lañ nekkoon Asamaka lañ def un mois et quelque jigéen Asamaka ñu indi ñu Arlit après Arlit Agadez lañ jëm après agades Niamey yoon bi dafa gudd trop trop trop te foo dem di nga fa def un mois wala deux mois. waaw ah, am na si du si ñàkk du si ñàkk mais man moom Algérie laa nekkoon man tailleur laa dama doon ñaw maa ngi woon sama place bu baax am na ñu doon def clandestin nag wax dëgg yàlla am na ñoo xamante ni bii Algérie sax taxaw leen a jóg am ñoo xam ne ci frontière Tunisie bi lañ leen jàppee indi leen daanaka sax ñoom ñoo fi ëpp mais Algérie sénégalais yi dañ koo ragal tellement bëriwuñ fa sax à cause de loolu quoi rapatriement bi dafa bëri mais gars yi bëri lañ doon jàll ñi Maroc lañ doon dem ñi Tunisie lañ